sargal euh, ki nga xamantene moy sama sama natango Daouda Mine euh, di nga xamne mom mo nara jité a euh, commission nationale de la carte de presse bi nga xamante ne ñu si ci ñun ay ay membres nañ ci euh diko di rafetlu tan bi nga xamante tan nañ ko ndax nit la ko xamante ku xarañ la ku xam li muy def la mais surtout comme commission bi dafa am euh walum juridique ci li muy liggéey ku xam loolu la donc loolu dañ koy rafetlu di ci ànd ak moom di ko wax bismillah euh, li nga li nga xamante ne bëggoon naa ko ci teg mooy ñu jàpp ñëpp rek ni euh, commission bi nekk fi pour boddi pour boddi compté commission bi daf fi ñëw pour delloo buum ca boy boy ga maanaam fexe ba ñun ñi ñëpp muy journaliste technicien caméraman photographe tout ñëpp ñi nga xam dañ nekk ci milieu bi te euh, loi bi déterminer seen fonction ak seen rôle pour mu jox leen gëdd ndax

donc ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ci sañ am nañ ci droit nañ ñëw def dépôt et puis après Inshallah, euh, je pense que commission bi dina def liggéey bi en sachant que autorité administrative là, c'est-à-dire tey mën nga dem sax ba boo d'accordul ak ñoom nga mën euh, saisir même les tribunaux notamment le, la chambre administrative de la cour suprême leneen li mu ci bëgg yokk te dama ko fàtte wax ci moi. mooy assainissement parce que dafa ko laaj léegi assainissement bi fan lay tàmbalee lii benn pàcc rek la ci assainissement mais nañu xam ne aussi am carte bi taxul nga mëna def lu la neex ak fu mu la neexee bu ñu waxee man journaliste la amna naa suma carte de presse déedéet au contraire dafa ay devoir yo xamanteni aussi dafa and ak métier bi bien entendu da ngay exercer sa liberté mais donc exercer en toute responsabilité moo tax dans ce cadre là et ça je le dis pour ñëpp xamaale ko ñi ko xamanteni ni ci xel nañu nangu ni titulaire carte bi bu défé yenn toxi ak yenn njombé correct mëna na dem ba nangu carte bi ba nangu proposer commission ñu nangu carte donc c'est pas parce que am nga carte rek da ngay commencer di def neex donc lool aussi c'est un des points bi nga xamantene mo jëm ci assainissement bi en attendant yenen points yi nga xamantene comme par exemple l'obligation qui sera faite aux médias ñu respecter la convention collective loolu ay convention yenen points yooyu yep inshallah jeudi nous nañ def fi ben point de presse ñun Synpics bo xamantene dañuy détailler parce que le 26 passé nañu fal ñun le 26 janvier 2019 démb nañu am un an donc dans ce cadre là am na benn réunion bu prévoir ci digg semaine bi euh, bu ñu si tegoo dina def benn point de presse jàkkaarloog wéykat wéykat taskatu xibaar pour discuter tous les points yi nga xamante ne dañ si te assemblée générale dénkoon ñu ko.